salaamaaleykum waa Kaolack salaamaaleykum waa Kaolack Kaolack ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi président de la république sunu xarit sunu frère xaritu waa Sénégal euh, ñun bëgg nañu waa Sénégal ñun waa Sénégal bëgg nañu mu dolli moom. ñi bëgg mu dolli yëkkati leen seen loxo ma xool dollil ba wis ñu ne woon na la ñun ñoo ko res fan lañ ko waxee woon muur kon ñun ñoo ko res ñi ko res yëkkati seen loxo ma xool li ñu mësul gis ci benn président de la république ba ñu juddoo ba léegi ci moom lañ ko gis kuy góor na ko nangu góor na nangu ni moo leeral Sénégal moo yor wërsëgu Sénégal dama bëgg nag affaire bi ay wax yoru ko de nañu am fulla ñun bu ñuy xeex ak di xastaate ak di sànni xeer ñun nañu yor sunu ay carte teel yeewu buñ ñu cokkaasee bu ñu fayu buñ ñu saagaa bu ñu fayu buñ ñu dóoree bu ñu fayu nañu fayoo ci urne yi mu jeex merci waa Kaolack jërëjëf merci Benno Bokk Yaakaar merci Sénégal merci président de la République jërë ngeen jëf